di nuyu bokk taalibe yi rawat nag bokki murid yi dëkki Touba xanaa di wax wax ju gàtt rek te tënk ko dafa am jamono yi dëkk bi am po dafay bari woon lu mel ni tëgg ak fecc ak kar ak naan ak yu niroog ñoom ba am jëmmi jamono benn julli ajjuma boo xam ni sëñ Abdou Khadir xamul lu muy julli ndaxum tëgg bam noppee waxtaan ceeg sëñ Abdou Lahad sëñ yëkkati kàddam daal di wax ak njabootu sëñ Tuubaa gépp booba ñi fi nekk sëñ Saliou sëñ Abdou Khadir sëñ Sohaybu sëñ Murtala ak moom ñoo fi nekk moo tam sëñ Mbàkke Madina nga xam ne moo koon sëti wax ca ak ñoom doo ko yëkkati kàddoom tere la muy tere muy dox ba nëgëni loola moom jeexoon na fi tàkk bu jeexut te wàññi na ndax euh, lu yàlla tere woon de taxul nit ñi ba ko yonent bi tere taxul nit ñi ba sëñ Tuubaa tere taxul nit ñi ba sëñ tere ko nit ñi di ko nëbb ne kon alhamdulilah gannaaw ñee na ko waaye ñu ngi koy nëbb rek sant ci yàlla nag dañoo weesu nëbb dañ koo fisal léegi ba fam nekkoon lu ko rawaat am ci dëkk bi te loolu nag day xotti arma sëñ Abdou Lahad nag ba mu signé loole daf koo jox procureur Jurbel bi kuñ mësaa jàpp fii buñ la yóbboo boobu gendarmerie fi nekk gendarmerie dañ la fay téye ñetti fan yóbbu leen njëriñam bu fekkee da ngaa màndi ñu tëj li 45 jours booy génn ñëwaat la bu nel boo tox ñu tëj fukki fan wala juróom benn fan nga fay 3000 ñu doog laa bàyyi tëgg moom booba kenn defatu ko daa tegoon ci ci rond bi ay nit ñoo xam ñooy saytu lool ba mujj mu doog a andi gendarmerie ba muy andi gendarmerie tam Abdou Diouf la ci waxtaanal bëggoon a andi police Abdou Diouf ne ko police day yàqub dëkk andi gendarmerie gendarmerie nag jàngal nañ leen yar nañ leen xam nañ fa ñu war yem dafa la ñu yem police nag ñoo xamul dara yaree deku réew xamadi ne ci dëkk bii nag di xotti ormay satiri sëriñ Tuubaa daaw ci réew ci ci ci ci ci ci couvre-feu bi jàkka dem nañ fekk fa dóor fa ay nit ba gaañ leen loolu police ko fi def di jàpp ay di dugal ci maali oto leen rey kon polis day yàq dëkk loolee waxoon Abdou Diouf waxoon wér na bi ñu leen fi indee itam dañuy fi indi spécial tere la bon lañ leen fi indee waaye indee wuñ leen fi nag toroxal nit ñi te ñoo dàq toroxal nit ñi ci àdduna kenn yeesu coobaan mii fi nekk wax na wax joo xam ne dara jubu ki dara du ci dëgg te dara wéy ci ndaw la nag loo xam ne su fekkee ay supérieur am ñoo ko digal lañ ko def ndax ndaw sacrifié nañ ko ndax laal na foo xam ne aude su faa laal dëkku sëñ Tuubaa bi bu dee murid da cee war a maan bu dul murid yoonu murid cee nekk ba mu ciy waxee nakk sudul noonu la wax tegu ko fenn te dara du ci dëgg na yem ci liggéeyam fii liñ leen fennee nun ñëpp xam nañ ko carte gi mi ngi ci dëkk bi sàngara si mu ngi ci dëkk bi toox mi ngi ci dëkk bi te ñoo xam nañ fa ne fa ñuy wax buntu Pikine ci yoon Daaru Musti ña nga fa demuñu fa attaqué leen mbaar ya ña fa bari fa yu bëgg dee te xam nañ ko demuñu fa attaqué corniche bii ci wetu jàkk si Cheikh Saliou ña nga fa kër soxna Ami dem gi Cheikh Khadim Moustapha sawa ñaga fa marché bii ña ngi fi gaar mu ndaw ña nga fi te am na ku ma te wax ju wér la nee na ñu ngi daan toxee ci daari kaami ci ci ci ci jullikaayu et bi ak péncum sëñ fa lañ daan toxee bi fi làmp yi nekkee ñu leer léegi defuñ ko ñu ngi koy defee diggante kër sëñ Touba ak kër sëñ mun nag boo nu porte boo nu jàppee boo nu boo nu kalaamee police police dañuy woo buñ leen fa fekk wala bi sàngam dañ fa ñëw buñ leen fekk wala buñ leen fekkee na ngeen daw te ni boo ñu jàppee ba yóbbuñu itam boo jam ñu ñu ñu bàyyi ndax suñ soxlaa téléphone bu seer nuñ lay woo ñu wutal leen ko suñ soxlaa téeméer ju ñu ko si jox leen ko kon ñoo ngi ay jubut nag nga xam ne sëñ bi da koy tere te lu luy mën a nit wama nit yóbbu ko sawara léegi lool kon ku ne war na koo bañ waaye ñoom li ñuy tere nit a ko tere oto yi ne ci dëkk bii di ay rib yu jëpp ñoo ko moom kër yu bari ñoo ko moom te dëkk bi leen ko may futbal kenn terewu ko loi terewu ko ci lañu wax ñoom waaye sëñ bee koy tere dëkk bii di Touba parité fa ne ñu ngi ko def ci àdduna bi parité amul Touba lu tax kàddu sëñ bi maire yi bi ñu koy wote maire yëpp dañ ko wote Touba wote wuñ ko ndax la kàddu sëñ bi li yàlla may sëñ bi Touba nag ba noppi nekk nekk nekk nekk titre foncier bi sëñ li mbooloo mi bëgg kàddu sëñ bi rek mooy mooy kàddu ndax mba mbooloo mi kàddu sëñ bi lañu dëgg moo tax seen luwa kàddu sëñ bi kon mooy luwa luwa mooy lu mbooloo mi tënk ànd ca loolu mooy luwa ci ñoom mu ne nag sunu luwa mooy kàddu sëñ bi. su jegee ñëw fii nag bëgg bëgg a suufal kàddu sëñ bi indi kàddu tubaab yi nga xam ne ñoo ko fa teg te jànguñu xamuñu gëmuñu yàlla te yàlla ne ko teewul ci li yàlla alxuraan ab naafeq nga ab kàccoon nga ab saay-saay nga kon ñoom ay kàccoon ay saay-saay yëruwuñ jànguñu bu dee ndaw nag sacrifié ñu ko buy wax na wax lu xam te xam fa mu war du dee ci dëkk bi am fi teraanga am fi ñeenti at lu ne mu am ko te amu ko woon bëgg a taxaw fii nag di yar waa dëkk bi te yor leen ci alxuraan yor leen ci diine ba muy wax ci diine xamul lu diine tere xamul lu diine bañ na yem fam xam tere yi nag moom mënta tee ba mu wéy ndax euh, ñoom état nañ continuer lii nag xilaaf ak sa sa sëñ Tuubaa la ba mu mel ne moom dong lañ ko xeex moo lañ ko tus ña ko doon xeex nag ñoo ko moo leen gémm ñoom policiers yi. ndax lu sëñ bañ ñu ngi ko def ci dëkk bi bëgg a sobentel kàddu ko sëñ Muntaxa bëgg a sobentel kàddu ko njaboot sëñ Tuubaa te nekk ci dëkk sëñ Tuubaa loolu dëgg du yoon ministre l'intérieur barki démb téléphone naa ko jutuma ma bàyyil commissaire tontoo ko ma toog nañ ñett yoon wax ci lu mel nii même président toog nañu wax ci kon te ñu xawuñ xam nañ li ñuy def nañ rab ci kudd ñu yoof leen ci gayet mooy la am solo